ciy njëkk mooy ñu ngi nuyu suñu mbokku chauffeur yi nga xamante ni nii yàlla dafa dogal ñu teewal leen fii ci noto guy jama représenté fii chauffeur yi nga xamante ni nii ñooy chauffeur Sénégal yi nga xamante ni nii boo ñoo aju ci ñiy dawal oto di camion car bon ba ci oto yu ndaw yi ah ñu fas yéene nag ñun fi ñu taxaw dañ fee fas yéene taxawal mboolem doomu aadama boo nga xamante ni nii danga ñëw ci fii ci nooto a ah, bëgg fee maanaam dugg oto ah di voyager ñun li ñu soxla mooy li nga xamante ni nii moom la ñu jublu kenn bañ a ñëw fii ci nooto di tarde walla nga di am ay naxar-naxar wala nga di am. ah yoo nga xamante ni nii da nga naan lañ ñu def ci gaara bi ñu ngi jublu ci dëkk bi dañu fee am loo xam ne ñun dañ ko fee fekk muy garage bi ah dëkk bi nag bi ñu ñëwee fekk fi garage bi amuñu woon fu ñu taxaw ah, ay trottoir la ñu amoon di fi taxaw trottoir yi nga xamante ni vraiment moom la ñu amoon di fi taxaw yi tamit amoon nañ ci jafe-jafe trop parce que i tamit ak nu mu mën a demee ñun dañ fee nekk rek pour pour Sénégal yëpp. nekk ñu fi pour chauffeur rek sax dañ fee nekk pour Sénégal yëpp kon léegi ñun bi ñu ñëwee amuñu ñun wan fu ñu taxaw bi ñu amul fu ñu taxaw wax dëgg yàlla fem na nii dem nañu ba nga xamante ne nii am nañu garage boo nga xam ne mun nañ fa dugg garage bi nag bon kenn ku ci nekk ah xam na ni am nañu moom terrain boo nga xamante ne mun nañ fa taxaw am nañu mbaar boo xamante ni mën nañ fa taxaw di fi seelu taw bi bon am na lu des mais ñun tey kër yenu juddoo bu nu waxee te yàlla tax am nañu 62 ans parewul kon nag gis nañu ne maire bi jàmbaar la wax dëgg yàlla parce que mu ngi def li ko war ndax fexe na ba ñu am garaas fexe na tamit ba ñu wote suñu garage kon loolu moom ñun loolu lañ ci soxla woon ñu wote garage bi. garage bi tamit man bi ma fi nekkee maa fi représenté woon Alaaji Góora mi ko yore woon garage bi wëlbatikoo tamit doon yëngu ci turu ki nga xamante ni nii moo di synthèse ki fi nekkaan tamit ma doon ko xëccoog moom yàlla dogal na moom dem na ba. moom yàlla génn na ko parce que nun génnewuñu kenn mais moom moo dema a dem ba nga xamante ni moo abandonneel boppam ñun nag génnewuñu kenn nit ñëpp dëkk nañu leen loxo mu le maire tamit nu ngi koy remercier parce que ci taratuwaal lañ doon taxaw dugal nañu fenn ñu ngi sàkk lu mu man mu jàpp nu parce que nun jàpp nañ ko te yàlla tax moroomam yi nga xamante ni ñoo fi nekk tamit gis nañu nii nii tamit ñun ànduñu syndicat bi nu wéeru ànd nag moom pour mu yilif nu nag ci ay woteel kii ak falal kii ak fulil kii mais moo nu yilif yilif ci transport transport boobu munu yilif nag lii nga xamante ni nu ngi ko jiital moom caaxaanu nu ci moom bis bu nu defee nag lu tax nu won ko ginnaaw yi tamit nu won ko ginnaaw ànd nekkunu fi nag pour won kii ginnaaw wala ñuy ñàkk won kii ginnaaw ñu ak li ñuy laaj gouvernement bi yow ban gis-gis nga ci am su fekkee jox nañ la ndombo tànk bi bon xam nga nit moom liggéeyam da cay am lu ko neex di ca am lu ko naqari bon kon ñi nga xamante ni nii moom moom ñoonu jaboote moom waaw ku jaboote chauffeur xam nga ni nii chauffeur yi ñun lii ñu def ci Sénégal parce que ñun gis nañu ñi nga xamante ni nii vraiment ci garage yi ñoom seen i jëkkër dañoo nelaw mais kees yi ñuy dim yi ñuy nekk ci garage yi ci lañu leen di dimbali Sénégal liggéey amu fi bariwu fi bokk parce que ay usine amu fi transport bi ak oto yi di daw nit ñi moo leen di yor comme nit ñi nag dañ leen a yor il faut que am na yoo xam ne ñu dina ko woyofal dañu wàññil lu mel ni gasoil yi dañu wàññil njàpp yi njàpp mënta ñàkk mais nag ñu nu yërëm daal te oto neexu la jaarale ci yoon parce que juróom-ñeent fukki infraction lu fa dem neexu la jubal kon foog ñu ñuy muñal xam ne oto yet waa sénégalais yi la ñuy dawal waaw réew mi la ñuy dawal ce que fait tamit ñi nga xamante ni ñoo fi nekk comme ay tamit ñu xam ne syndicat mun na garaw d'accord parce que kuy défendre dara il faut yenn saa yi di nga garaw mais li ñuy défendre tamit foog ñuy bàyyi xel gouvernement bi xam ni bu ñu xeexee dëgg-dëgg ak gouvernement bi tamit day sonal askan wi quoi te loolu doxul boo ginnaaw bu loolu wéyee nag suñu kilifa yi man Tiwaawan laa dëkk ko mel ni sëñ Abdoul Aziz Al Amin maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm taxaw nañu taxawaar rafet ak sëñ Cheikh Mati Lay kon ñu ngi remercier tamit ki nga xamante ni nii mooy maire bi ak alsandooy mi nga xamante ne fa. waaw Maysa Niang salaamaaleykum euh, ñu ngi nuyu waa Sénégal gépp di nuyu monde entier di nuyu euh, sunu secrétaire général Alsane Doy di euh, nuyu mboolem safoor bu fi nekk aussi di euh, nuyu monsieur préfet di nuyu suñu maire monsieur Maguette Ndiaye ak commission bi nga xamante ne si ñoom la ñu seqaloon liggéey bi yëpp ñu ngi ñu ngi koy nuyu moom maire bu baax parce que bu ñu waxee dañ koy nuyu faw ñu taxaw fi tuuti parce que dafa am loo xamante ne si nii yàlla dafa dogal mu tombe ci moom ndax ñun amuñu benn métier bu dul transport en commun mooy suñu métier yàlla dogaloon ñu koy dund mu bari woon ci ay jafe-jafe nag yoo xamante ni si dañ ko ci traversé bu mu bari lool yàlla dogal moom bi mu ñëwee ci programme moom première mu boole ci transport en commun parce que xam ne transport en commun euh, dara mënul dox sans moom pour que ñu am développement transport en commun faaw ñu soxali ko moom xëy na programme boobu la jël bi mu ñëwee ci mbedd lañ nekkoon. ñu ngi doon taxaw ci kaw tali bi ak insécurité mais dafa ñëw euh, vraiment defaral ñu gaaru ceer boo xamante ni si wax dëgg yàlla ñun ñëpp di dund tey transport ku fa nekk sa xol sedd na ci. Euh, bi loolu pare mu ñu boole ci nag euh, ay ay xawoon na am ay jafe tuuti mais yàlla dogal mu wane ci njàmbaaram wane ci xarañam ak commission bi mu santoon moom aussi ak préfet. ak seen équipe yëpp ñu wane ci njàmbaar parce que Sénégal dëkku démocratie la dëkk la boo xam ne aussi dëkku droit la képp koo xamante ni si yaa ngi fi nekk na la yoon ñor parce que bu la yoon ñorul itam da ngay sonn bi mu ñëwee ñun ñu ngi koy remercier bu baax baax a baax moom monsieur le maire ci gàttal ak préfet ak équipe bi mu àndoon yëpp di aussi di di di remercier yéen presse bi Sénégal parce que itam tey fu mbir àgg ci àdduna rek bu doon ni ñun rek la duñ ko fa mën a àggalee. waaw mais mais mais euh, bu bu loolu jàllee programme bi ñu am mooy dañu fas yéene ñafe andi suñu xel. andi suñu xalaat dem ci ñi nga xamante ne si suñuy mag lan ci métier mi suñuy papa lan ci métier mi ñu dem jëli leen ñu boole li ñu am ak li nekk ci ñoom pour ñëw pour euh, jafe-jafe yi nga xam ne moom la transport bi traversé woon at yi yëpp ñu ñu fexe mu dañ ni ñuy fexee mu dañ mooy ñu boole xol yi boole xalaat yi kenn ku nekk li nga xamante ni si moom nga am ci lu baax ci yow nga indi ko ñu ñu bokk ndey bokk baay euh, bu ko defee rek suñu transport ci suñu ko ci son son bu ko defee mu mu mu jëm mu mu jëm kanam jafe-jafe yi jafe euh, na bariwul mooy bi de un boobu saafarawu na mooy problème de élection ñun daanaka suñu jafe-jafe problème mu élection la woon daanaka suñu élection pour mu taxaw nii rek moo doon suñu première jafe-jafe moo doon suñu grande jafe-jafe yàlla dimbali nañu élection yi jàll na li ci des képp koo xamante ne si nii gañe ñu ngi lay ñaan ñu talalante loxo yéenante jàmm daal ñu woo ñi ci bokk ñëpp daal bu ko defee yàlla dogal ñu ñu pour ñu transport ko ñun nag ñu ngi remercier aussi chauffeur yëpp. chauffeur yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu ñu bokkal ñi suñuy xarit ñi nga xamante ne si suñuy am di jàmm lañ dégg nañ ñu ñëw ngir su yàlla ak suñu jëmb ji suñuy kilifa ñëpp ñu ngi leen di sant bu ñu limee dañuy juum mais yëg leen ni daal sant nañ aussi chauffeur yëpp yi nga xamante ne si teew nañ fi waaw vraiment nguuru Sénégal ñun am nañ yaakaar ci ci moom ak ak ak PCE am nañ ci yaakaar parce que itam Sénégal mooy li ma la wax rek mënul développer sans transport en commun ñaan président de la République euh, aussi di ñaan euh, syndicat yi di ñaan suñu kilifay transport ministre bi ñëpp ñu ñu ñu gën ñu dimbali ci transport en commun gën ñu jàppale parce que ñun amuñu lu dul transport moom la ñu am moom la ñuy yaakaar bu baax a baax a baax ñu ngi ñaan di lancer appel président de la république ak ministre bi ak syndicat yi ñëpp suñu kilifa yi ñu jàppale ñu ci transport bi mu soxaliku lu koy dooleel ñu taxaw ci euh, bu nu euh, lépp loo xamante ne si jafe-jafe la daal ñu dimbali ñu ci mu tegeeku loolu daal mooy suñu mébét ñu ngi leen di sant aussi di leen gërëm. ndaw candidat yaakaaru Ceerno to soit maanaam rek boo yoree buñ la joxee lenge yi lan mooy say mébét xanaa fas yéene liggéeyal sama fanse yi rek ak sama militant yi ba ñu gis seen bopp waaw fii waaw dem beeg dikk bi rek dafay xawoon jafe ñu ñàkkoon garage amuñu woon garage si kaw télé bi lañ daan taxaw di yàpp yàlla dogal nag ñuy sant maire nag bi mu ñu tabaxalee garage dugal ñu sa léegi nag ñun ñun nañ fexe ba garage bi am kilifa loolu nag ci lañu doon xeex boobu ba léegi ba yàlla tey ji dogal ñu ak si fii ñu ak si tey. transporté day bari ay jafe-jafe euh, li ñuy laaj nan nga ko gisee ak lan ngeen di xaar ci gouvernement waaw gouvernement bi xam nga ñun moom ñoo ñu war a encadrer ndax gouvernement moom bu ñu koy wax ñun ñëpp citoyen lañ ci lañ bokk te ñun amuñu lu may transport. kon nag transport luñ ko war a luñ ko bëgg a ginnaawal rek mbaa luñ ko bëgg a rek dañuy daal di taxaw gis suñu bopp loolu moo ko waral. gasoil bi dafay seer après dañoo waxoon taraay bi muy ñëw chauffeur yi lañ koy jox finalement tamit dañoo mujj jox ko ñoo xamante ni bii Sénégal xam nga boo amul doole duñ la boole te ñoom xam nga ñoom amuñu doole non te loolu d'accord uñ ci woon chauffeur lañ ñu waxoon bi mu fi nekk chauffeur la waxoon ne chauffeur ñoom moom oto yi ñoom la ñuy changer oto yi. ndax oto lu mu seer seer chauffeur a koy fay chauffeur mooy jël ab oto ñu di ko di verser ay ñeenti junni di verser ay ñetti junni ak nangam kon chauffeur mooy fay oto ki jënd oto moom fayul oto ndax ki jënd oto moom bu ñu ko bàyyi woon oto mu gaare ko këram du fay waa ci sama taxawaay ci pour taxawu nag chauffeur yi ba li ñu bëgg lépp ñu gis ci seen bopp di sant nag maire ndax vraiment mënuñu koo fay ndax organiser nañu fii si garage defaral ñu garage boo xamante ne bii amul fenn si communes yi ñu wër vraiment defar na garage boo xamante ne bi dañ ko si sant di ko si gërëm di kontaan ci moom tamit nag ci liggéey mu gën noo jàppale nag ndax jàppale nañu waaye nag mu gën noo jàppale ndax sant nañ ko gërëm ko ndax suñu xol sedd na si moom daal di gërëm nag su préfet ci taxaw. man maa ngi tudd Pape Diagne maa jiite commission transport bi nekk ci mairie Notto Goudiama waa xam nga lii moom nañu sant yàlla bu baax rek julli ci yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa euh, di sant maire di sant préfet mais lépp na fa ne ci dëggu rek ci ko teg ndax ñun chauffeur lañu mooy suñu métier mais duñu parparloo ku ñu xam ci loolu nga ñu xamee chauffeur da nga koy déglu rek moo wax li mu wax su fekkee lu mën a nekk la nga ne ca mënu ne nga ne ko lii la ñuy def te bañ caa indi doole kon dana yomb ci yow daanaka man su ma ak ñoom loolee doon. li mënu nekk ma wax naa ne li mënu nekk li mënu naa wax ne mënu nekk leeral ko ba xam ni lii moo tax mënut a nekk boo xam ne mën nekk ma fekk yaa ànd yow ca loolu man ca loolu ñu dul maa ngi ñoom yàgg na at yëpp ñu ko doon coow commission bi mën naa wax ne deful deux mois biñ ko biñ ko formé léegi nii matul deux mois mais yàlla dimbali ba élection baa ngi am tey déggoo benn coow déggoo benn xuloo déggoo benn xeex ñoom ñoo baax rek ak neex a waxal tey gëm nañ ma ca loolu laa xam ni moo gën a moo ma gën a yombal sama liggéey euh, pour ma liggéey liggéey boobu ndax lu ma la wax jàpp nañ ci loolu dëgg la lii daal mu nga xam ni sama premier pas bi nga moom laa teg ba nga xam ni ànd nañ ci loolu ana caaman ñun ñu njëkkoon nañ waaw xam nga mat bi moo nit ki bu fekkee da nga ko war wax ko li ma a nekk te muy dëgg su boobaa dina yomb mais su lu dëgg su boobaa du yomb ci yow mais ñun lu ñu wax moo ne ci ñun te commission bi yor nii ci loolu ñuy dund lu ñu wax tey bu subaa tam boo ñëw loolu leen lay waxaat man si la maa ngi koy moo war a woote comme ñëpp am na sécurité kandaay cinq la ñu euh, kenn ki dafa renouvelewul demul keneen ki dafa rocci demul mu des ñett ñetti mooy Sala Dieng moo ci des ak ñoo Pam Ndaw ak Maysa Niang ñi ñoo fi nekk euh, ci feebar ñooñ lañ doon liggéey mais départ bi ñëpp lañ doon àndoon di liggéey ñoom ñoom juróom euh, ñi nga xam ne ñoo mën a woote mooy ñi nga xam ni am nga transport en commun te nekk région Thiès te jënd carte regroupement bi ñooñu ñoo mën a woote dégg nga ndax ci loolu ci la ñu sukkandiku pour mën a xam lan la ñuy liggéey bu fekkee nga am poids léger boo ñëwee du la du la jaay suñu carte doo mën a wote bu nga am poids lourd doo mën a wote mais am na ku la ci amoon euh, ancien régime Baye Gora Mbaye bi mu ko yore amoon na ay poids léger poids lourd ci nekkoon yàgg na 2002 2003 la woon mais ñooñu dañ leen bàyyi ci biir ñu wote am na isoloir am na encre am na urne lépp la am comme ni ñu koy defee lañ ko defee ñun sécurité baa ngi taxaw gi nga leen nii genre ma yàgg nii waaw foofu moom foofu lañ maire gënoon naa ko baax parce que li ma defal xam naa ko baax ndax li mu teg sama loo xam ma li jël ko nii xëy na xalaatu na sa doo si fi mais nag yàlla moo ñu jàppale ba lépp na sotti na ci kàttanu yàlla yéen maa ngi gërëm bu baax a baax vraiment yéen sant nañ na gërëm leen seen taxawaay rafet na ñu ne ñu ne sant bu baax wasalaam dégg ngeen jërëjëf di kontaan ci bisu tay bi ndax bi ñuy ñëw fii nootoo amul marché amul gare routière ab tali la nit ñi daan taxaw di encombré fii mais bi ñu waxtaanee ak xale dëkk bi ba am jubboo ñu defar ab marché defar gare routière tey ji yàlla dogal na mbaar yi ci gare routière bi àgg na euh, tey ji organisation bi moom la ñuy voté mooy syndicat yi ñoo taxaw tey pour def élection élection bi nag am na ñetti candidat dégg ngeen leen kenn ku nekk wax na lim yéene ak lim mébét ah ñi ngi remercier maire nag waaye remerciement bi man population bi laa koy def ndax mënoon ngaa tabax gare routière te duñ sa dem mais nga tabax gare routière ñu jël projet bi moomale ko seen bopp ànd a yow ba régler problème yëpp ba tey jii yaa ngi leen gis ñi ngi voté ci jàmm amuñu benn jafe-jafe ngi leen di sant di remercier président commission transport bi nga xam ne moo toog ñoom waxtaan ba li yomb tey di remercier chauffeur yi di remercier aujourd'hui tamit euh, le sous-préfet bi nga xam ne si mooy ñëw ci réunion yi ak l'équipe municipale bi yëpp parce que benn lox euh, les benn lam du tàccu mais tey daal kontaan nañu notre gouvernement am na marché de fruits et légumes am na gare routière vraiment le bilan est commence à être satisfaisant donc vraiment kontaan nañ trop di remercier tamit kilifa yi ndax. ñoo nu jàppale ba lii mën a am donc tey jii vraiment ñu ngi remercier support yëpp ñu gën a jàpp rek ndax développement moom mënut a commencer lu dul à la base ndax bu dee da nga am gare routière booy tukkee ñu xam fi nga départ booy ñëw ñu xam fi nga wàcc mi ngi commencer am sécurité waaye fu la neex yabe rek fu la neex dem loolu day indi désordre voté nañ tamit ay loi yoo xam ne mooy accompagner gare routière bi maanaam stationnement yi nga xam ne dañ ko daan def ci wetu tali bi. yooyu def nañ ay ay ay dañ programme ñuy sabu oto yi nga xamante ne ni fi ñuy taxaw dañuy gêner ah Marodas tamit voté nañ taxi ak loi yi yëpp donc kon loolu nekk na loo xam ne daal euh, dañuy gën a dëgëral taxawaayu commune bi donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm di remercier ñëpp daal. bon éclairage public bi nag mooy point bi nga xam ni le matériel est là parce que président bi mu fi ñëwee ñu ñaan ko matériel bi may nañu ko. mais le lendemain bi mu demee waa Sénégal dañ ko coupé ni jotuñu benn këyit buy bu leen di prouver ni euh, matériel daf fee war a des ci noonu nag ñi ngi lancé un appel au gouvernement et au président nañu dimbali ndax mënoo defar marché bu mel ne mu am ndox euh, mu am ay douche am ay mbaar ba noppi nag euh, poteau làmp yi nekk fi président mayee ko fi tamit. waasale lañ ñëw coupé ko ba noppi nag defaruñ ko te loolu mooy mujj nekk problème bi nga xam ne moom la sofóor si di eh, di waxaat ndax mënuñoo gaare seen matériel ci foo xamee ne semi amul éclairage te matériel baa ñëw branché ko donc mu tàkk warta andi ay problème yoo xam ne si nii ñun bind nañ ba sonn te bala moo nekkaat problème boo xam ne ëllëg sofóor si dañuy génn naan marché bi amul courant noonu nañ ñu dimbali ñëw branché ñu ko bind nañ lettre yëpp nag mais amaguñu suite loolu moom ñi ngi interpeller le ministre de l'énergie di interpeller tamit le ministre des transports euh, di interpeller tamit le président de la république parce que kere bi mu koy wax le 14 euh, mars fii euh, journal yu bëri enregistré woon nañ ko kon donc loolu dayoon na preuve pour waa Sénégal ñëw remettre le courant dans le marché donc ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp def na ci xéewal. parce que Bayti Dakar amul woon ndox am nañ forage léegi euh, dàgga euh, moo fi amoon branchement sociaux boo xam ne xaw na manqué ak Daaru Alpha te waa PNDL financé nañu barki démb jox nañ benn notification 18 million boo xamante ne nii commune bi day jox apport deux millions pour ñu defal leen branchement sociaux yi mais sinon Kër Mbir Ndaw mooy dëkk bi nga xam ne amul ndox te dem naa ci mm, le le secrétaire euh, d'État chargé de des forages ruraux muy monsieur Diène Faye ba promettre na ma ni ma ci forage yi nga xam ne si moom la chinois yi di def dinañ ci andil benn Kër Mbir ndaw donc Kër Mbir rek moo fi dëkk dëkk boo xam ne amul ndox te incha allah dina am ndox te ndax ñu ngi ciy dox bu dee yeneen projet yi nag macha allah on a presque vingt villages yoo xam ne seen courant ñëw na seen matériel ñëw na vraiment lii moom lañ doon xaar ci président parce que euh, mënuñoo émerger Sénégal sans que les collectivités locales émergent